sëriñ cheikh mbàkke sëriñ cheikh mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1912 ci dëkk bu sell bii di Touba di doomu cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu xaadim rasul ak ku ñuy wax soxna Fatma Diop biñ feeñee jamono ci atum 1912 waajuram cheikh Modou Moustapha Mbàkke waajuram xaadim rasul la ko tudde sëriñ cheikh Mbàkke gaynde Fatma am na ñu mbokkal kii di soxna Fatma Diop ñu ràññee ci soxna Xadi Fatma Mbàkke soxna Haysatu Mbàkke Fatma maam Mor Anta Sali Mbàkke Fatma ak moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma bi mu dal lii di alxuraanul karim maamam sëriñ tuuba seexul xaddim lañ ko ci njaareem mook rakkam ja sëriñ mbàkke màddina ginnaaw bi nag lañ leen indiwaat ci tundoodi ci seen maam ja sëriñ maxtaar aale loo ci atum ba atum 1926 ci atum 1926 nag lañ leen jox sëriñ maxtaar jeng guyaar foofu itim ba tey ci tundoodi ñu wéyal seenum njàngum alxuraanul karim ci atum nag lañ leen jële ci réew mi yóbbu leen ci réew mi di gànnaar ngir xam-xam ci kàllamay arab ñu jox leen naar bu ñuy wax muxtaar asan foofu ci gànnaar ci atu 1933 nag lañ jóge gànnaar dellusiwaat ci réew mi ci seen loxoy waajur cheikh mamadou moustapha mbàkke ginnaaw gànnaar la leen cheikh mamadou moustapha mbàkke jébbal sëriñ mouhamadou dem bu njaareem ginnaaw njaareem nag ci loxoy sëriñ mouhamadou dem la leen jébbal sëriñ habibu mbàkke imaam ci loxoy sëriñ habibu mbàkke imaam nag la sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ak rakkam sëriñ mbàkke madina mujjee jànge ñu dellusiwaat Mamadou Moustapha Mbàkke ci di mu fas yéene leen a tarbiya Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moo leen tarbiya ci tundoodi ab diir nag lañ def ak moom ci tundoodi mu yabal leen ñoom ñaar kenn ku ne dem ci dëkk bu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke sancoon ngir dundal ko Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke yabal ko mu dem Nayde nay mi ngi ci yoon wi jëm Tuubaa Belalug Cheikh Abdul Ahad Mbàkke foofu sax la taawam bii di Serigne Mbàkke soxna loo ganee àdduna mu nekk ci Nayde googu ko Cheikh di liggéey di jàng ka jàngale di yar ak di tarbiya ba ni cheikh moodu moustapha mbàkke génnee àdduna laataa cheikh moodu moustapha mbàkke di génn àdduna nag yóbbuwaatoon na ko mu nekk nuboo ci ci dëkk yooyu nag la nekkoon di liggéey di taxawu waajuróom wa cheikh moodu moustapha mbàkke ba ni cheikh moodu moustapha mbàkke génnee àdduna ci atu mu wuuf ay rakkam taxawu taalibey waajuróom nekk na ku ràññeeku ci yoonu murid wi moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nekkit na ku ubbeeku nag ci àdduna bi rawatina ci afrique ak sénégal gi mu nekk ku relation la ak président Afrique yi ci atum 1973 président Houphouët Boigny recevoir na ko ci dëkk boobu di Yamoussoukro ci atum 1955 dem na ci réew mi di Beyrouth keroog ba muy dem sëriñ Abdul Aziz Baara la àndaloon ak ku ñuy wax sëriñ Moustapha Diop Njekk ci atum 1950 sëriñ Cheikh Mbacke resevoir na Lamine Gueye ci dëkk boobu di Taïf Mbacke ci atum 1949 dem na ci réew mii di Beyrouth keroog bi muy dem Beyrouth mi ngi àndoon ak Lamine Gueye ak ku ñuy wax Ahmadou Sarr ku ñuy wax El Hadji Magat Ba El Hadji Màggat Ba jamono jooju moo nekkoon meeru Ndakaaru Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sous-secrétaire d'État bu Amérique chargé des affaires africaines recevoir na Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci atu 1974 ci Washington ci atu 1962 buuru Maroc di Hassan II recevoir na kii Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci Rabat ci atu 1950 gouverneur bi ñu tudde woon gouverneur Victor recevoir na kii di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci atu 1944 bi fi général de Gaulle ñëwee recevoir kilifay diine yi recevoir woon na kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ babacar si mi nekkoon xalifa général des tidiane seydi nuuru taal ca yoon woowu cheikh mamadou moustapha mbàkke sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma la àndaloon ci atum 1944 sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma recevoir na président léopold sédar senghor ci atum 1963 ci taïf mbàkke buuru marok bii di mohammed cinq tim recevoir na sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ci atum ci capitalu marok di rabat roi faati ndakaaru ci visite bi mu fi doon amal gisee naa na sëriñ cheikh gaynde faatma ci atum 1966 bi mu ñëwee ndakaaru sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma buuru kawet itam recevoir na ko bisub keroog bi ko buuru kawet di recevoir mi ngi àndoon na ku ñuy wax Moustapha Diop njekk ak ku ñuy wax Boubacar Sy moom moo nekkoon ambassadeuru Sénégal ci réew moomu di kowet ba tey kilifa yi sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma giseel am na ku ñu doon wax ji momar gueye ci atum 1949 la ko Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma recevoir ji Momar Gueye nag moo nekkoon ancien ambassadeur bu Paris président Sékou Touré bu Guinée Conakry bi mu ñëwee Touba doon fi amal lii di nganitam Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma recevoir na ko capitalu Irak di Bagdad Serigne Abdou Khadir Jeylaani kii di Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dem na fa ngir ziyaare ji fa mu tëdd Liban itam Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dem na fa président bu Liban itam recevoir na ko président Omar recevoir na sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma arabi saudi ditim seen buur ba recevoir na kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde ak yeneen ak yeneeni doomu aadama yu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma recevoir ku lim ku sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma recevoir daa juum ndax gis-gisam moo sori woon te yaatu gis-gis bu sori woon boobu te yaatu bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma amee woon taxoon na réew mi di Libéria yi te mu amoon fa lii di ay tool àdduna bi itam moo xam afrique Asie asiyaani ba ci états-unis d'amérique itam ak walf bi amul benn réew bu ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma teelu te dem réew mii di gabon itam président omar bongo ku ko respecté woon la ba itam daana ko recevoir ci capitale boobu di libreville réew mii di sénégal itam amul benn politicien buñ fi mën a wax te sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma seet si woo ko wala nga recevoir ko ndax ànd ak sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ka ndam dong la ci yow looloo tax président bi fi jóge bu yeggul sax di maître abdoulaye wadd ginnaaw yàlla sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma moo ko jàppale moo ko jox xaalis moo ko samp ba tey jii su déggee président de la république maître Abdoulaye waad Serigne Cheikh Mbacke Gaynde faat ma ba tax na itam lii di réew mi amul lenn luñ fi mën a def te nañ Serigne Cheikh Mbacke dugalu ci kàddoom moo xam politique bi la moo xam kilifa diini yi la moo xam social bi la soo demee ci ndakaaru HLM yooyu ñu doon wax HLM Sicap Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax tur wa sax moom la moomee woon nga ñëw ci réew mi bépp capital régional wala bépp ville buñ mën a wax ci réew mi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma amoon na kër kër xam ne bis dana ñëw ay taalibeem wala taalibey maamam seexul xaddiim yi jaaxle te buñ demee man faa dal taxoon na mu dem taxawal li ñu tudde daayira ci nekkeenu cheikh Modou Moustapha Mbàkke nag la ko njëkk a taxawal moom daayira muy ci atum 1941 waaye daayira boobu nit ñi comprendre nuñ ko woon mu mujj tas mu mujj taxawalaat daayira ci atum 1958 ba tey nit ñi rek xamuñu bëgg bëgg sëriñ cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ji ak yaakaar ji daayira boobu itam mujjul jàll ci atum 1965 nag la taxawalaat yor daayiraam daayira boobu nag moom mooy dox ba nëgëni ci la sax wilaaye juddu ginnaaw bu mu taxawalee daayira bi ba noppi nag mu ngi wax ne képp ku ca nekk la nga nekk moom moo la ko sant defar na nag liñ tudde ay carte carte yooyu nag képp koo xam ne nii am nga ko gis sa moroom mu am ko nga la waaye def ko nen koo bokkal ndey ak baay ngeen di xàccandoo ak di dóorandoo bépp jafe-jafe bu ngeen am na ngeen bokk ko moo xam bu dee mbégte wala muy safaan ba yëgante bi itam lu ko neex la ci mbooloo moomu fuñ ko mën di defe nag ci biir réew mi lañu nekk nekk daal moom mii moom moo leen ko sant nii mu ko waxee nag jort na ne buñ ko defee noonu saytaane moom du leen mënal dara te du ci dugg ñu lu sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ginnaaw bu mu taxawalee daayira ba noppi kàddu yim ci yëkkati ngir bëgg daayira di doxe noonu dara lu dul bëgg ñu mën a mënante bu baax ba mën a dëggal seen sa morom nga koy dajal nekk doon ndaje yoo xam ne yéen a bokk ndey ak baay lépp loo xam ne nekk na nit loola morom yëg ko ñu ànd bokk seen soxla lu mooy leen lépp lu àgg ci moom loola mooy li nga xam ne mooy jublu ci bàyyil leen ñu leen nañ jox bàyyil boobu leen jox ay kàtt képp koo xam ne am nga ci kàtt yooyu yenn kàtt sa morom nga xam ne am na ko naka yow nga def ko ne ko bokkam ndey baay lépp lu soxlaam ci ñun moo daje fu moo dem di ko soxla lépp lu itam nga nekk ci ak moom loolu nag gis naa ne ñoom ñoo nga xam ne ñoo nga foofu di ko daje ñoo xam ne ñu ko daje fule loola ñu nga koy def dëkk yi dañ koy def itam bu dëppoo ak li nga xam ne ñu la def itam ñu da nga leen ko doy moo di loola ñu ngi góorgóorlu rek ci taxaw si dugg dara bañ a dox seen diggante bu xaw ana ñoo ànd ñu marché déggoo di dimbalante bokk yéene lépp lu ci yéen nag dara ñu nekk la su ko defee lépp loo xam ne nekk na ci ak li mu mën a doon ban yàlla képp ku ko doxale nag nii ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waxee yaa ngi ci daayira képp ku ko doxale naneen nag la nga am bay ba nga tudde ko naneen lu dul daayira ndax ab xalaatama te lii la ci jublu woon ba tey ci liggéeyub sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lii di kër gu mag gi nekk njaareem di mu mubaaraka sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mooy ki ko njëkk a miire dëkk bu sell bii di Touba itam moo ko lotise ci la 4 avril 1960 ci ndigalul waajuram Cheikh Mamadou Fadal Mbacke njaareem googu itam nekkoon na fa imaam ci jumaa yi ci luñ tuddee imaamu julli tabaski ak korite ci atum 1966 ba atum 1978 mu wuutu waajuram wa cheikh mamadul bachir mbàkke dëkku waajuram bee di taayif mbàkketi moo fa njëkk a yóbbu téléphone ci nekkinam ginnaaw bi nag lañ fa jëlee lii di téléphone ba xalifaam bi di sëriñ mbàkke soxna loo moo fa indi waa téléphone waaye lu ko jiitu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma yóbbu woon na fa téléphone taayif mbàkke googu itam jàkka ja fa nekkoon ci atum 1964 sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma moo ko mbàkki soxna loo yeesal na ko ci atum 1990 dëkku waajuram bii di baylaa tañ moomale ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma moo fa njëkk yóbbu itam lii di ndox baylaa googu itam mooy ñetteelu dëkk ci yoonu murit tim bu njëkk a am ab forage ginnaaw Touba ci atum 1948 Daaru Muxti ci atum 1950 ci atum 1952 Serigne Cheikh Mbacke am na forage ci dëkkam di Bayla ku teel a méngoog jamono la moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba tax na tabax yim fi bàyyi woon ci nekkinam li ñu tudde maçonnerie defaragul benn bâtiment bu raw bâtiment yi fi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bàyyi woon moo xam tabax yim fi bàyyi woon ci Touba ci fu Mbacke ba ci Ndakaaru Njaay ba tey ci liggéeyub Serigne sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma lii di ay école itam ci yoonu murit mooy ki ko fi njëkk taxawal moo xam ci tuubaa ci njaareem ak yéen a jum amoon ci dëkk bu sell bii di mbàkke ngir taxawal fi ay école yu gën a kawee ci wàllum njàng ak njàngale ci atum 1962 tabax na ay école ci njaareem muy école yi nekkoon ci kër gu mag ginnaaw foofu itam amal na école francais ci li nga xam ne ni moom mooy tuubaa mooy école bi nekk ci biir kër gu mag gi jàkkaarloog sàq mi tax na itam yu baree bari ci yoonu mi mbàkke gaynde moo tax ji ñu leen di tudd ci réew mi kuréel gi nga xam ne moo lëkkale woon arabisant yu sénégal yi ci njiitul sëriñ moodu maamun ñang seeti woon nañ sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma di ko laaj lan moo tax mu am mbébatum taxawal lii di ay école ak yéen a am ci tabax école yu mag ci mbakke wala tuuba sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ma ngi koy tontu bisub keroog di ko wax ne réew mi moom dafa xam ne réewum jullit la li ëpp ci réew mi ay jullit lañ xam na ne sax làkkuñu lii di arab xam seen diine ak seen lislaam dafa nekkoon lu nekk nekk farata loolu itam moom moo tax mu taxawal ay école foofu ci njaaréem am na yéene itam tabax ay école ci mbàkke bawal ngir ñuy jàngale njàngale mu gën a kawe sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma daal wax na programme bu yaatu ci lan moo tax mu amoon mébétu taxawal lii di ay école ci biir réew mi ñu teew lu kàddu yi sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma yëkkati ak réew mi xam ne réew mi islam la jullit ñi nga xam ne ñoo fi gën a bëri réew moo xam ne réewu islam la nag su fekkoon seen làmmiñ di làmmiñ arab it xaytale seen ay ñu war a jàng arab bu baax ndax ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mooy islam la li nga xam ne moo day sàrt li ñu dul li ñu tere mën na ko xam ne ci ndigal nga xam ne yëpp tamit loolu moo di li nga xam ne moom moo ji ma xam ne def ci ay xamal kaw yoo xam ne yi lekkool yoo xam ne yi ñu koy tabbi ba génn ci dinañu mën a xam xam-xam boobu xam-xam bu rafet loolu farata la loolu moo tax ma def ko foofu yi nga xam ne fa la ñu xam léegi ñaari li nga xam ne moom lañ fa def moom léegi moo di xam-xam boo xam ne war naa toll ci enjeu daye mu ngi set fekk foofu mooy fi nga xam ne fa la ñu ñëwoon tabax yi nga xam ne moom lañ fa tabax ak classe yi nga xam ne moom lañ fa def wante li nga xam ne moo di programme l'école bi ci boppam moo di njàng mi tàmbalee ba xam-xam bi nga xam ne mooy jëm ci na ci bi la nga xam ne mooy tàmbali ba nag mooy ne moo la taw njëriñ ñu certificat bi ngeen béy classe war a def a jot bi ba dox diggante certificat bi fa nga xam ne fa war a yem jàng bi ñu ko war a jàng foofu lañ ko war a defee la nga xam ne moo ci def suñu yéene moo di bu fekkee ñi nga xam ne jëlee nañ njëriñ waxtu bi ko jëlee a dikk fii àggale ko li nga xam ne moo fi def ñun toll léegi àgg nañ ci li ñu yàlla def ci Mbacke météo bi ba ku génne foofu maanaam leer si bi nit ñi wax ñi nga xam ne jógee nañu fa daaw lañ fay sant bi tam nga xam ne njàng ma foofu la yombal mën ñu dikk fii ñu ne li nga xam ne mooy mooy di suñu yéene ci ñoom moo di fexe leen ñu am ay bourse yoo xam ne dañuy mën a jël dem ci dikk bi tàmbalee bi ñi nga xam ne fa lañ ñëw yàlla foofu su fekkee sa diggante bi ñuy def fii ci Mbacke fekk na mën nañoo dem sax ba ci biir foofu la xam ne kon ci biir rek ñu dem ba ci dem ci àggale su fekkee ne fekk ñu ñoom ñu yooyu foofu wala nga xam ne ñoo leen taxaw na ci àgg def yi nga xam ne moom la ñu war a def ci Mbàkke nga xam ne moo war a jot lii ñoom la ñu tàmbalee ma njëriñ ba mu jeex tàkk ñu jaay ñu seet ba koo tàmbali ci at mi waxtu yu fàttee nag xam ne tabax yi seen bopp fàtte nañ ñu gën a ñu ci ay professeur yooyu ci réew ñoo xam ne ñun la nga xam ne moom la ñu war a xam ne foofu lépp dana fekk ñu di ñoo xam ne seen xam-xam àgg na ci man koo joxe la ko war ba lépp luñ fa soxla mën a am loolu mooy mooy yi nga xam ne moo di suñu yéen yi nga xam ne ñu am nañ certificat daal la nga xam ne ñu bëgg moo di ñun ñëpp suñu boole wala bañ caa def lépp ñu mën leen a yónnee ci bitim réew ñu àggale su fekkee loolu am na ren mooy li xam ne moo leen topp tàmbali di ko toppatoo agul dañ mébét boobu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bëggoon a taxawal ci Mbacke Bawal muy ay école yu gën a kawe ci wàllu njàng ak njàngale mébét boobu mujjul sotti waaye ci biir kàdduy sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ngi wax ne école yooyu mu bëgg a taxawal ci Mbacke Bawal bu sottiwul dana maye nag lii di ay bursu ngir jàngkat yooyu nag gën a géeju ci wàllu njàng sëriñ Modou Mamoun ñag mi ngi koy laaj xalaatam ci bursu yooyu mu fas yéenee maye ndax seetlu na gëstu ñu dem jàngi ci réewu arab yi waaye buñ ñëwee nag dañuy cëkkal boole kook nag lu waaye wax ñu xaraamal loolu nag moom sëriñ Cheikh Mbacke lan moo ci xalaatam ci étudiant yooyu keroog sëriñ bi mu ngi tontu di wax ne etijan yooyu sax laataa ñuy dem bitim réew li leen njëkk a war mooy ñi leen di jàngal ñu respecté leen ba lépp lu ñu leen tere wala lépp lu ñu leen digal ñu def ko ndax xam-xam biñ xam lañ fa yéenee def ci ñoom élèves yooyu wéye ndigal nag moom mooy tax ñu mën a am boobu xam kon nag ñi leen di jàngal lépp lu dañ koo war a bàyyi nag fas yéene cee am xam-xam mën nañ cee am àdduna ndax ci la ñuy liggéey lii di àllaaxira it mën nañ ko cee am ndax ci lañ war a jaamu seen boroom école bi sax ab yar la njëkk a tàggat ci doomu aadama bi jàngi ba ñëw nag téewuta werante waaye lépp nag nañ ko teg ci wàllu xam-xam ñu demee nag ba gàkk nañ seeti ñu leen jàngaloon ñu jubbanti leen taalibe gi nag ñu ba ko noonu muy doxe ni taalibe war a doxee moom daal lool mooy ab mébétam loolu nag moom moo tax mu fas yéene maye ay bursu ñu teewlu kàddu yi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma yëkkati nañ leen bourse ñu dem jàngi ba ñëw di cëkkal ak lu waay wax ñu xaraamal kuy jàngal ku nekk loolu ñu war a amante loolu moo di ki nga xam ne moo di sa sëriñ nga waddal ko warban ko suturaan ko yooyu ci ndigalam yooyu nga mat fekk ba nga leen a ak moom ci benn lépp loo xam nga xam ne lii ku lay nekk li nga bëgg la moo tax mu dugal la ko waaye jëm ci boppam lim la tawee nga xam ne dafa am ci sëñ ci sa kanam loo xam ne bii boo ci àggee ci demee ni nga demee du nekk lim la wax loolu moo tax mu teel la ko yooyu su fekkente ne gëm nga loolu jàpp nga ko lim la digal di nga ko war a def lim la tey di nga ko war a bàyyi nga xam ne lépp ci yow sa bopp rek la jëm ci loolu tàng bi jàng bi nekk loolu moom mooy waaw moo di sa xalaat xalaat na ne ñoom ñi nga xam ne dañuy jàng ngir tey di jàng itam ngir ëllëg loolu moo di adduna lañ bëgg ak alaaxira yaar nekk na ci la nga xam ne la ñuy sàkk ndax la ñuy sàkk su fekkee dañuy dàgg ci àdduna dina mën a rafet dana ñoo ko ñoo ko mën dañu ko a doxal naka ñu ko bëggee te la xam ne moo nekk suñ kanam ëllëg si biir loolay dalee nañ ko ci côté bi ndax xam-xam yi koy jàng sama alxuraan hadis ba mu jeex takk loola koy sàkk xam ne dañu sàkk bëri a amal yeneen ñoo lay mën a jëriñoo yéen ak yeneen yu bëri yoo xam ne war ko nañ ko def te duñ ko def koo xam ne da ngaa jóg te xam ne yaari yooyu moo la ci sa bopp moo bëgg sa gis tey jii nga rafetlu ko ëllëg bi nga xam ne moom nga jëm itam wala ko war a fàggu ci lu baax lépp nga fàggu ko loolu nga xam ne moo di sa tafsir am na war na la ndax fekk na du noonu kon nag li ñu lay def moo di léegi ci digal ñoom nga xam ne ñoo di seen seen yar leen juróom yoon di nga xam ne li nga xam ne moom la ñu war a def gannaaw bu xam-xam njàng ñëwee sax ak yar ci leen foofu lañ ko war a def te yoo xam ne génn nañ ko béréb bi nga xam ne dañoo jàll ñoom seen diggante ci sa bopp ñu war maa lan dëggoo dëggoo ànd àndina rafet bañ a xuloo bañ a warante ci lu loo xam ne seen njàng yëpp lépp lu dul seen njàng mën nañ ko warante warante ci bu ñu jógee laaj nga xam ne moo dañ seen seen leen njàng loolu muy dellu la ñu wut rek la vraiment yi yeneen warante yoo moo doon fexe ñu balaan seen diggante ñoom ñi nga xam ne ñooy taalibe bi jàng ndax jubóo jubóo bu mat rek kooku dañ koy tàmbalee ba ñu tollee ci at yooyu ñu toll loolu su ñu ko defee ba jógee ko dañuy gis ñoom dañuy dëkk ba tax na ñooñu nga xam ne ñoo dañoo yore yooyu fukk ba ëllëg si biir dama jàpp ni ci ñoom déggoo bu mat rek am na ñoo xam ne bu fekk lépp dafa ay doon ndey ñu ko di ko ndax ñu bokk moo di nga xam ne ñoo bokk jublu rek pour ñu defoo ko ñoo bokk jublu loolu nag foofu lañu koy jàng li ci kàddu yooyu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ngi ciy dolli ne yéene jim am ci taxawal daayira ngir ñu bokk ndey bokk bàyyi yéene jooje itam la école bi war a def ndax ñoom ñëpp ñoo bokk benn jublu ci jataay boobu jàngalekat yi yóbbante woon nañ sëriñ Moodu Maamun Ñang mu waxal leen sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ne ñoom mënuñoo dem Bayla ak Daaru Salaam Muritaju bu ñu sañoon daal école bi moom mooy nekk seenu muritu yooyu kàddu la jàngalekat yi yóbbante woon sëriñ moodu maamun ñang sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma mi ngi tontu ne ñoom seen kàddu googu ñu wax dégg na ko bu baax a baax te sant na leen ci ndax loolu ñuy wax ne moom mooy seen tarbiya mat na ab tarbiya te jëf jooju ñuy jëf sax moom moo ëpp ci tarbiya ndax tàggat nañ mbooloo mu bare a bari ñoo xam ne ni amaguñu jublu mënaguñ dara te ñoom ñi ngi leen di tàggat ba wéy ci lislaam ak santaane suñ boroom ji ngir xam ko mi ngi wax ne ñoom liggéey boobu ñu nekk takk sag laxasaay yor sab gopp sax tollul noonu seen kàddu yooyu ñu wax nag moom sant na leen ci bu baax a baax te gërëm na leen ci ñoom jàngalekat yooyu daal sant munta paase sant te sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde ma def na leen ko ndax nee na daal ñoom lool ñuy def rëy na ci moom lool bari na sax laneen lu nit di def ci moom li jàngalekat yi di def moo ko ëppal solo ñu lu kàddu yi sëriñ Cheikh Mbacke yëkkati ci ñiy jàngale. ndax loolu nga xam ne wax nañ ko xam di loo xam ne ñuy tarbiya bi ëpp ci tarbiya bi ndax moom sa mbokk lu baax gannaaw ne yi seen xol mënagul nañu amaguñ leen dugg jëm dana jëme ab lu ñu leen jëme ci xam ne laxaataayu sax gàddu sa bopp dem ci ba dugg yi tolluwu noonu loolu moo ko solo la lañu wax sant naa leen xamal naa ne na ci lu bare bari yeneen ñi nga xam ne ñu koy def jënd seen alal di ko joxe wala ñu fab seen ñàkk di ko joxe loolu ñuy def am na maanaam moo xam ne loolu am na ci loo xam ne àggul aji na lii di màkkatal mukarama ci atum 1949 ca aj googo bi muy aji mi ngi àndoon ak sëriñ Abdul Aziz Si Malik Dabaax mi nekkoon xalifa général des Tidiane ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Sarr Mampala ku ñuy wax moor lii sa Ndiaye ak ku ñuy wax góor gi saa faal bu Mbàkke Bawal ak ñeneen ak ñeneen ñu sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma àndaloon ci ajug 1949 gi ci ajug 1949 googu bi ñuy ñibbi si aj gi sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma egsiwul ci réew mi ci réew capitalu Liban foofu la leen bàyyi délégation bi ñibbi si Sénégal moom mu des foofa fas yéenee dem nag ci réew yu bari ci golf bi màggalug daaru xuddoos googu sax sëriñ Mbàkke Madina la bàyyi mu organiser ko ajiwaat nay dem ci atu 1965 muy ñaareelu yoonam ci màkkatal mukarrama lii di màggalug daaru xuddoos itam ginnaaw bu ko waajuram Cheikh Modou Moustapha Mbàkke taxawalee ci atu 1936 sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma itam moo ko suqali ba màggal gi toll fii ba tax na bu njëkk itam daan nañ wax màggalug sëriñ Cheikh cheikh mbakke gaynde fatma sanc na nag lii di ay dëkk ñu ràññee ci daaru xudóos jolo fala doomam jii di sëriñ abdourahman mbàkke gaynde fatma nekk ak dëkk bii di daaru salaam jolof fala doomam jii di sëriñ aboo mbàkke nekk ak dëkk bii di bayla fala xalifaam bii di cheikh abdul fata mbàkke gaynde fatma nekk dëkk yi itam ay waajuram moo ko sanc te nekkoon na fa di fa liggéey muy nayde bi ko waajuram cheikh modou moustapha mbàkke dëloon ak nubóoj yi ak cheikh mbàkke gaynde fatma am na ay tur yu bare bare yu ñuy wooye ay turandoom doom ñu ràññee ci sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma am na ay turandoom yu ñuy wooye ahmadu am na turandoom yu ñuy wooye cheikh bayla am na ay turandoom yu ñuy wooye cheikh sikab am na ay turandoom yu ñuy wooye gaynde am na ay turandoom yu ñuy wooye naas ak yeneen ak yeneeni tur yu ñuy wooye jëmm jooju di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ku amoon relation la ak ay waajuram ginnaaw cheikh dul faadal mbàkke bi mu toogee xalifa général des mourides sëriñ cheikh ku nekkoon ci ginnaawam lii di dëkk bi ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke la Bachir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim wóllëreem la woon waajuram la woon ba néew na lool nga gis sëriñ Basiiru Mbàkke te doo gis sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ba tax na kii di sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma sax tudde na ko doom sëriñ Abdullahi Mbàkke boroom dër bi wóllëreew seriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma la woon ba sëriñ Cheikh Mbàkke itam tudde na ko doom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke ñoom ñaar ñoo yaroondoo ci atub Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ci tundóo di na biñ nekkee tundóo di lu leen Cheikh Mamadou wax ne kii di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma tudde na doom waajuram woow di sëriñ cheikh abdul ahad mbàkke jigéen ñi itam defoon na leen ay bàjjen ba tax na relation yu baree bari séq na kook ñoom ñu góor ñi fi dese itam defoon na leen ay waajur ba tax na itam relation yu baree bari séq na kook ak jëmm yooyu ay rakki boppam muy ñim séqal cheikh mamadul mustapha mbàkke kenn ku ne tudde nga ko doom ñi ci bare itam moo eggale seenum njàng ba ci xalifa bii fi nekk di xalifab cheikh mamadul mustapha mbàkke di sëriñ ahmadou muxtaar mbàkke lislaam bi te nekk ci biir réew mi soo demee ci suñ mbokk laa yéeni sëriñ cheikh mbàkke cawlaay mi ngi fi te sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma lañ ko tuddee afrique itam ku ci amoon ab gis-gis la ba ci buur mar bi ñu daa wooye Assane II sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma tuddee na ko doom ndax relation buñ séqoon ndax sëriñ Assane mbàkke gaynde faatma mi ngi fi yeneen pays afrique yi itam président yi ci bari amoon nañu relation ak sëriñ cheikh mbakke gaynde faatma naw guñ ko nawoon te teel daanañ invité sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma lii di ay ngan teeloon na am gis-gis boobu mu defoon ci àdduna bi rawatina ci réew mii di sénégal taxoon na bi nguuruk sénégal taxawalee code de la famille sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ginnaaw bu mu ko gisee moom dafa taxaw ne loolu moom munta nekk code de la famille bii nguurug sénégal fa séenee taxawal dëppoo wut ak aaday sénégal dëppoo wut ak lislaam te du njàngalem suñu boroom te itam du sunnay seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam loolu moom munta mën na nekk ci bind nag nguurug Sénégal di wax ne daal àndu ci tey àndu ci suba ñu teewlu mbind mi ci sëriñ Cheikh Mbacke defoon ci code de la famille bu nguurug Sénégal fas yéene woon a taxawal bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala naasir alxaq bilxaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm iddin alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah xadrat alixwan alkiram faqad taalaatu في قضية قانون العائلة الذي وضعته الحكومة السنغالية ليتخذه الشعب قانونا يسر عليه ثقافة دينية ودنيوية قد أحسنتم وأديتم ما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا كثيرا وأما أنا فقد قلت هذا إن ذلك القانون لا أعتبره قانونا ولا أعتقد أنه قانون يليق إخراجه لمجتمع إسلامي لتناقض أحكامه مع الآيات القرآنية على طول الخط وتنافيه مع الآيات النبوية المتواترة وخرقه الإجماع القطعي وخصوصا الأحكام التي تتضمن الأحوال المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق وميراث ونفقة ومعاملة الزوجين وبرور الوالدين وخير خير ذلك فمصدر القانون للمجتمع الإسلامي هو الله وحده بما نص عليه في كتابه وسنة نبيه وليس لأية سلطة أخرى حق حق في مخالفتها ولا الخروج عما ورد فيهما من نصوص وبذلك يخالف القوانين الوضعية التي تتغير بين حين وآخر حسب الظروف والأزمان والدليل على اختصاص الله بالتشريع قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقبلنا به بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ويأمر الله تعالى المؤمنين باتباع الشريعة وينهى عن اتباع ما maa yuxaalifuha bi qawlihi ittabicu maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabicu min dunihi awliyaa qalilan ma tadakkarun wa yuxarrimu taxriman qaatican alxuruuja can nusuus alshariica wa yactabiru alcaamila bigayri alshariicati kaafiran aw faasiqan aw faasiqan wa zaaliman wa yuctabaru mutamarridan can alxukmi alsharciyi wa man lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum alkaafiruun wa man lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum alfaasiquun wa man lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaaika hum alzaalimuun المؤمن الذي يختار من الأحكام ما لم يختاره الله فهو ضال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويترتب على كون الحكم لله وحده نتيجتان هامتان الأولى ثبات القوانين الشرعية واستمرارها ولو تغيرت الحكام وتبدلت الأحوال وليس كذلك في القوانين الوضعية التي يضعها الحكام رعاية المبادئ التي يعتقدونها أو يعتنقونها وخدمة الأنظمة التي يقومونها لغرض ما الثاني احترام القوانين الشرعية والإيمان بها ككل لا يقبل التجزؤ بحيث لا يؤمنون ببعض كتابه ويكفرون ببعض والثقة بها لكونها من الله عز وجل وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت لكم أمرين لم تضلوا بعد ما تمسكتم بها لم تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله العملي والسنة المقرونة بكتاب في الوقاية من الضلال هي الطريقة العملية التي نقلت عن الرسول نقلا متواترا عمليا معروفا عند الكافر ومن الوصايا على هذا المعنى من الأحاديث النبوية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي من رغب عن سنتي فليس مني والسنة عبارة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وتقرير ومن يشاقق الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما اتكم الرسول فقصوه وما نهيكم عنه فانتهوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وطاعه اولي الامر لا تجب الا في حدود ما امر به الله ورسوله فمن امر بما يوافق الكتاب والسنه فطاعته واجبه ومن أمر amara bimaa yuxaalifuhumaa alaa samaa wala taata wa haazaa maa yaquluhu rasul sallallahu alayhi wa sallam laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliqi wa yaqul alsamcu wa taatu ala almari bimaa ahaba aw kariha illa an yumara bi maasiyati fala samca wala taata wa ulul amri laysa lahum sultaanu nazarin wala baxsin fi alaqaaidi wal ibadat walxaakimu alwaxiidu fi haadihi alumuur huwa allahu alqaa'ilu wa anna haazaa siraatii mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafarraqa bikum an sabiilihi ليس لأي مسلم إلا اتباع الشريعة المحمدية التي لا تغيرها كثرة الحوادث ولا اختلاف البيئات وقد قرر الله أحكامها وأكمل تعاليمها وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد Mbacké kon loolu la Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma bindoon ci code de la famille bi nguurug Sénégal fas yéene woon a taxawal ginnaaw bi nag yit na ko ay kilifa kilifay diine yu bare bari ngir ñu xool ab moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde waa waajuram di xaritam cheikh abdul ahad mbàkke la ko njëkk yi sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke ginnaaw bu mu sante sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma man de gërëm naa yàlla nangul naa yàlla yàlla laa gërëm moo di buur lislaam laa di gërëm ndax moo di sama diine sant naa ngën gi mbindeef ndax mooy sama bi yónnent sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nag lii mooy samay kàddu man abdul ahad ñu teewlu mbind mi sëriñ abdul ahad mbàkke bindoon moom tam ngir tontu sëriñ cheikh mbàkke gaynde alhamdulillahi radina billahi rabban wa bil islami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan wa baydu rabbihi wa ibnu cheikhihi abdoulahad Mbacke ginnaaw cheikh abdoulahad Mbacke sëriñ cheikh Mbacke gaynde Fatma fobaatoon na mbind mi yitaat ko waajuram cheikh abdou xaadir Mbacke cheikh abdou xaadir Mbacke la def sant suñ boroom buur bi tabaraka wa taala julli ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam moom cheikh abdou xaadir Mbacke nag ma ngay wax ne ginnaaw bu mu jàngee mbindum doomi mbokkam jooju di sëriñ cheikh Mbacke gaynde Fatma Moustapha Mbàkke ginnaaw bu ma jàngee mbind moomu mu bind te jubluwu ci dara lu dul lislaam gañe lislaam gën a jëm ca kanam te jubluwu ci dara lu dul dimbali ñu man cheikh Abdou Xaadir Mbàkke de musumaa gis mbind mu ko gën a wér ci wàllu lislaam ñu teewlu mbindum cheikh Abdou Khadr Mbacke alhamdulillahi al-aliyyi al-a'la wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin habibil mawla wa ala alihi al-athiya wa ashabihi al-kurama amma ba'd lama ra'aytu ma kana الشيخ أحمد البكي من الشيخ محمد مصطفى البكي من الشيخ أحمد بامبا البكي في الانتصار للدين والنصيحة للمسلمين وجدته من أصح وأحسن ما قرئ من ذلك جزاه الله عنا خيرا آمين عبد القادر Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke moom itam tontu woon na ginnaaw bu mu gisee mbindum Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moomu ginnaaw bu mu santee suñ seen boroom julli ci ngën gi mbindeef ak i sahaba ma ngay wax na ñun de ay jullit lañ te ay jullit nag la ñuy wéy di doon te sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma lii mu bind jullit yi moom moo tax kon nag ànd na ci mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma lillahi wa salaamaani ala safati sëriñ soye bu mbàkke ginnaaw bu mu gisee mbind ma moom itam tontu woon na sëriñ cheikh mbàkke gaynde ma ginnaaw bu mu santee suñ borom julli ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa mi ngi sant doomam jooju di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faat ma nee na nag mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde Fatma liir na ko xët par xët ba lépp jeex mu settantal ko xóotal naa ci itam lii di sama gis-gis waaye li sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bind ci code de la famille leer na nañ mel na ne itam ni weer wi leere ni la leere kon daal ànd naag sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci am mbindam bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ila muhammadin wa alihi wa sahbihi xiyar amin ama baad faqad tasafaxtu ma katabahu ibnu axina cheikh ahmad almakki tubawi fi raddi ala alqawanin al asriya allati ixtarataha alxukumatu sénégaliyatu wa amnaatu fihi nazar فوجدته بحمد الله تعالى واضحا وضوح القمر بكلام فصيح ونقل صحيح أنار به المحجة وأوضح الحجة لا غبار عليه ولا إشكال ولا إشكال لديه فجزاه الله عن المسلمين خيرا كثيرا الله أمين اللهم أمين أفقر الفقراء wa afqaru kulli ma yura abu madiyan shaibu almbaki atubawi cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim moom tim ginnaaw bu ko sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma yitee mbind moomu sant na sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma di wax ne code de la famille bi nguurug sénégal fas yéene taxawal te réew mi fas yéene cee dox moom àndut ak code de la famille bi li sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma bind la ànd alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah amma baad fa inni lamma abdaali ibnu axi alxaaji cheikh ahmadu mbaki ra'yahu fi mashru'i qaanunin الأسرة التي قدمته الحكومة السنغالية العلمانية دستوريا إلى الشعب السنغالي المسلم وافقته الموافقة التامة في رأيه الصائب والذي طبق فيه الكتاب والسنة والإجماع إن الحكم إلا لله فحكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما وسلام على من اتبع الهدى الفقير إلى الله محمد المرتضى عندك Serigne Abibou Mbacke imam moom itam tontu woon na keroog ginnaaw bu mu gisee mbindum Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma boobu mi ngi wax ne de kàddu yi mu dégg wala mbind mii mu gis mooy marte boo xam ne ni bépp tabax boo xam ne du tabaxu dëgg du tabax bu jëm ci suñu boro marte bi dana ko toj te marte bi sax toj na ko kon loolu la jàppee kàdduy sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma yi ñu teewlu mbindum sëriñ habibu mbàkke imam ci code de la famille bi sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma doon ŋàññ alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi al axyaari alkaamilin wa waafaqtu ala kalimati xaqin في الرد على المعاصرين في قوانين خارقة لإجماع المسلمين بين فيها أن الأحكام الشرعية توقيفية بالروايات الصحيحة والآيات البينة ووجدت بها غاية السرور ورجت أن يصرف الله أنا بعد مكائد الغرور جزا الله تبارك وتعالى عنا هذا الكاتب الذي يخضب للدين ولم يرضى بالدين انتهى بمرقم الجاهل الحق حبيب الله المكي mbind ma itam yit nañ ko kii di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke moom maam Thierno Ibrahima Faty moom ginnaaw bu mu santee sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma ngay wax ne mi ngi sant bu baax sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma lii sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nag bind ci code de la famille moom ànd na ci nañ loolu ñu teewlu mbindum sëriñ cheikh awa balla mbàkke raaytu lazi katabahu ibnu axina cheikh ahmadul mbakki ibnu cheikh mohamadul moustapha al mbakki wa qadimna wa radina wa huwa kalaamun sahih wa na sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ginnaaw bu mu gisee mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma nee na mi ngi sant bu baax sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma te mi ngi wax ne képp koo xam ne nii gis nga mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma mii loo tuut tuut tuut xam-xam war ngaa nangu li sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma bind ndax code de la famille bi baaxul ñu teewlu mbindum sëriñ mouhamadan koso moom maam ceerno ibrahima faati mbàkke alhamdulillahi wa shukru lahu wa salaatu wa salaamu ala rasulihi natatamahu hadi awraafu wajadnaahu xaqan saxiixan musallaman indana wa inda kullina indahu adna imam sharia al mutahhar sëriñ abdul aziz si malik dabaax mi nekkoon xalifa général des tidiane moom itam ginnaaw bu mu gisee mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma boobu ma ngay sant suñ boroom di julli ci ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaana laale lii di saxaaba yi àndoon na ngën gi mbindeef ma ngay wax ne di jàng na téere bi sëriñ cheikh mbàkke gaynde ma bind ci code de la famille waaye lu ko gën a wér te gën koo leer amul moom nag ànd na ci mbindum sëriñ cheikh mbàkke gaynde ma moomu ndax lépp dëgg la ñu teew lu mbindum sëriñ abdul aziz si malik dabaax bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala طالعت ما كتبه وقرره قدوة الخلف ونخبة السلف سلالة الشيخ أحمد القديم رضي الله عنه الشيخ أحمد الباقي ووجدته حسنا في هذه جزاه الله عن الأمة أفضل ما يجازي به المحسنين أعطاه ظهرا للإسلام والمسلمين متمتعا بالصحة والسلامة xataa yuxaqiqa jamia ahdafihi tijahihi bi xalqihi muhammadin alayhi salatu wassalam jërëjëf mag ñooñu jàppale woon sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci ŋàññ googu mu doon ŋàññ lii di code de la famille kon nag buñ demee ba Sénégal doxul ci code de la famille nañ ko sante sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax moo ko xeexkat ca ba xeex ba jotee soo demee nag ci téere biñ mool mbindum mag ñoom ñii kenn ku ne nag sa signature ma nga fa ngir wax ne yaa ngi jàppale sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ci xeex bi moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma itam bind na ay téere yu takkoo takku ñu man cee ràññee rek xasida guñ tudde ala hali hamarun bind na itam ci sëriñ tubaa seexul xaddim di ko waye ka tagg bind na itam ci ak murit nu mu war a doxe maanaam ak taalibe ziyaara ji woon na sëriñ tubaa seexul xaddim ci barabam bi defoon na ay way itam ci ginnaaw bu mu ziyaara jee seexul xaddim jullit bi itam ni mu war a sàmme ab xolam ba dara lu soxor du ca nekk itam sëriñ cheikh mbàkke gaynde gaynde Fatma bind na ci ku lim daal li sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma bind daa juum xam naa ku delluwaat ci kàggu yi daa yëg na sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma daana bind moom sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma itam am na ñu ko way ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall téere moom itam def na wala fal gu yaatu ci sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma xam naa miin nañ lool jàngkat yi di jàng boobu wala fal ku mel na Baye Xaalis Sey ak kii di Baye Abdoulaye Ñang ba tey sëriñ Mor Kayre nekkoon bindkatub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim moom itam way na ñaari xasida kii di sëriñ Cheikh mbàkke gaynde faatma benn bi ci arab la benn bi ci wolof xasida gune ñaar fukki way ya teg na wéyal ndonal maamam ak waajuram cheikh moodu moustapha mbàkke ak taxawu nag taalibe yi ko waajuram bàyyee cheikh moodu moustapha mbàkke ak i rakkam ci la nekk nag ba mu génnee àdduna doomu cheikh moodu moustapha mbàkke ba mi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci tuubaa daaru xuddoos ci këram gi ñu tudde woon petit palais bisub gaawu ñaari fan ci rakk ji gàmmu ci atum 1398 ci gàddaay gi gaawu ñaari ci rakk ji gàmmu ci atu 1398 jullit ci gàddaay gi dëppoo woon ak muy samedi 11 mars 1978 samedi 11 mars 1978 ñu yëgal ko ki nekkoon xalifa maamam di sëriñ cheikh abdul ahad mbàkke mu woolu cheikh abdul xaadir mbàkke miy rakkam cheikh abdul xaadir mbàkke moo ko jullee moo ko taxaw ñu jébbal ko boroomam ca wetu waajuram wa cheikh mamadul mustapha mbàkke ci jumaa ji ci sooroor bi féete kër cheikh mamadul faadal mbàkke foofu lañ denc sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ginnaaw buñ ko dencee ba noppi yi murid yi nag mel na lu gën a rakkaaju ndax jàmbaar ji dem na kañ doon xoole mu mamadul moustapha mbàkke dem di sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ay nit yi nit ñàkkaat nañ seen bakkan ci bisu biñ dencee sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ba noppi ndax ñu bari dañoo bëggoon a ziyaare barab bi ndax jortoon nañ ne gaynde fatma munta demee noonu kon yóbbaale ñu bari ci atum 1978 ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ka mu tuddee waajuram wa di cheikh dul moustapha mbàkke di sëriñ mbàkke soxna Lo moo ko wuutu ci le 11 mars 1978 ba le 1er juin 2005 le 1er juin 2005 ba nëgëni nag Serigne Abdul Fattah Mbacke mooy ki ko wuutu ñu koy ñaanal mu yàgg fi ci toogaayu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem ay rakkam ndax sag la ci daaru Xuddoos ak Taïf Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na ay bis yuñ koy fàttaliku ndax bisum ñaari fan ci rakk ji gàmm di bis bim génnoon àdduna bis boobu taawam ba Serigne Mbacke soxna Lo faboon waxoon na lii di waa daayira wilaaya jagleel leen ko ñu di ko màggale ci dëkk bu sell boobu di Taïf mu fobaatoon baneen bis bi di 11 mars di fukki fan ak benn ci mois de mars foboon bis boobu joxoon ko dong ngay laxasaay yi te ñoom itam ñu koy màggal ci Taïf ñii di màggal weeru wolof yi ñii di màggal weeru tubaab yi ñaari màggal yooyu itam bari na faneen fuñ ko doon màggal waaye daal direction bu mag bi mooy Taïf mu jóge nag ñaari daayira yi waxtaan nañu muy daayira wilaaya ak daayira donga yi ci ndigalul sëriñ soxna bis bi muy ñaari fan ci rakk ji gàmm ndax bis boobu lu ci ëpp dadaa biirum nawet ñu jàpp nag léegi bis bi ci fukki fan ak benn ci mois de mars di ci fàttaliku waale taawam ba sëriñ mbàkke soxna loo mam faye waajuróom di cheikh mamadul moustapha mbàkke am na nag yeneen bis yu ñuy fàttaliku sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ci biir réew mi muy lu mel ne ay journée culturelle sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ñuy ñaan ci kañ doon wooye borom naas jàmbaari daaru xudóos ja ka suqali màggaluk daaru xudóos bam toll fii mu toll yàlla nañu ko yàlla fayal te taas yu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi moo xam sët la ak